asalaamaaleykum mbokki internetu Dak Médina maa ngi leen di nuyu di leen ziar ci koor gi di leen baalu ak di leen baal ak ci turu waa Dak Médina yëpp tey nag ñi ngi fii ci rue 25 du 18 di def euh, micro trottoir ci embouteillage bi gis nañ tali rue 25 bi nu mu xatee gis nañ tali bi nu mu daggee oto yi ñi ngi gaara law dama leen nuyu rek law nga développé ci lool Euh, ñu ngi lay fay Mbacke di la jaaraat bu baax di baalu ak ñëpp di leen baal ak à ci Dak Médina mooy ni nga ñu dugg ci weeru koor boo xam nekk weeru koor bu sell yàlla defal ñu ci ndam koor gi nag Mbacke dañ ko bokk suñu bokk chrétiens yi ren waaw dafa anticiper ànd ñoom quoi ñoom it ñu leen di ñaanal seen koor yàlla nangul leen ko mais ñun ñi nga xam ne ñooy musulman yi ñun tamit ñu ñaan yàlla yàlla nangul ñu suñu koor mooy li nga wax ñi parce que nit ñi dañuy ñëw dugg si fu ne mooy li ñu mooy li ñuy wax da nga gis particulier boo xam ne du xam fu mu war a gaare ñëw rek gaare euh, commune bi tamit ñu leen ciy woowaat ñu ñëw jàpp ci liggéey bi parce que fi ñu toll nii taxawaay bi métti na trop trop léegi dañuy dox nag euh, xool ñi nga xam ne ñooy taximaan yi wala ñi nga xam ne ñooy ñoo fiy jaay ñu laaj leen xar-xar bu marché bi ak Rue 25 bi nan lañ koy dundee ci koor gi grand sonn rek woor doo mën a dem fenn client bu la arrêté doo ko ñeme jël fu mu ne nii diggante bi xoolal bañ naa cinq client parce que fi ñuy dem ay parte ay kii te fu mu ne nga génn sax si marché bi da ngay jël client balaa ngaa génn fi nga ko jëlee perte ay vingt minutes trente minutes te ñun xam rek tamit liggéey bi lañ am te taxi bu taxi Dakar dafa nekk loo xamante ne bu xatee rek ñun du ñu arrangé parce que xam nga bi dafa bëri cag-cag yi yàngooy doo comprendre xam boole ko tamit cag boobu laa ñëw ñu remarqué fii biir marché Tilène cag-cag léegi dañ fi bëri ba pare ñi xam yéen a nekk euh, nga xam ne yéen a nekk biir marché Tilène ci bi fii euh, na ngeen koy dundee métti ah, na kay parce léegi ñun lu ñu liggéey ñun ak ñoom a koy boole ko tamit ñoom ñu ñuy siis comme si que ñoo dañoo toll ay taxi yu ñuy fay te alors que ñoom dañuy réere mbir côté boobu ñun taxi oto buy daw territoire Dakar fii taxi suñu assurance vingt et un mille kooku moto boo xamante ne amul sax permis kooku warul concurrence ak ñun taxi boo xam ne légal warul concurrence ak ñun liggéey bi métti na métti waay boo xam ne taxi ba léegi versement am kenn mënu ci wax ba ne nañ cox versement taxi wàññi ko wala ñu nañ favoriser taximan si côté bii nii taximan da ngay taxaw sax di yàpp client fekk nga fay juuti nit romb la fa saaga la wax lu la métti xam nga te yow boo maîtriser sa xol xam nga chaque jour yaa ngi si problème. masa dilem bi ni mu xatee nii Ruben 5 bi. wax que ñi ko war a gérer dañuy dem di lijjanti leneen oto yi dañuy gaare gauche droite surtout maanaam particulier yi dañuy ñëw di jënd benn affaire jaale yow baadoola nga wala ñoom moom 4 x ñu yor war nañ mën a gaare fu leen neex ñii di sabo buñ ñëwee taxi la ñuy ñëw sabo wala ak yooyu duñ leen xool xama dañuy calculer doomu kii la wala doomu lee la xam naa yooyu am ah nañ gën a góorgóorlu liggéey rek waaye instant bi moom wax dëgg yàlla moom des na quoi parce que du nii lañ ko daan dundee weeru koor daan nañ ko gisee neneen par rapport ak nii bi dëkk bi xat na xaalis amul ñun dañuy liggéey versement sax duñ ko am wax dëgg yàlla. gis ngeen embouteillage bi ni mu mel fii sama ginnaaw gis ngeen scooter yi fii gis ngeen oto yu mag yi métti na trop léegi euh, ñu jëm leen ñaan rek comme heure ndogu léegi mu jot tamit te ñu ngi ci tali bi nii gis ngeen embouteillage bi ni mu xatee nii fii ci rue 25 angle 18 waa gis ngeen ko noonu maa obligé sax dem euh, waxtaan waaw law en tant que habitant bu dëkk fii yow yow nga dëkk fii Médina. Mhm. Euh, rue 25 soriwu la. Mhm. ñu leen laaj rek lan ngay interpellé maire bi ak état bi fii ci rue cinq ak ni mu xatee. avant tout dama naan nit ñi nañu tàppe xol yi quoi. Euh, bi xatul tali bi xatul de. wóor na yàlla nan nit ñi yaatal xol yi rek bu ñu yaatalee xol yi rek tali bi dina yaatu mais problème bi mooy dañuy demaat dañuy dañuy jubluwaat ci état état il faut nga jàppale ñu parce que bu ñu commencé travaux yi boobu ba léegi dañu sentir surtout Médina dañu sentir embouteillage bu metti trop trop trop trop commune boo doon ñëw accompagner jàppale ñu ci mais commune bi gisuñu leen fi parce que daanañ gis ay agent yu fi nekk benn booy lañ fi gis léegi waxtaan moom muy ibu euh, kenn. lu am importance a ngi noonu xaalis bi ñuy nañ ko bàyyi yaa ngi dégg oto yi lu ko fiy tax a jaar daw police yi dong la. vingt cinq bi moom li fi nekk ëpp na affaire bi xat na xaw ma kii ñu doon defar tiwo yi ñu doon dugal la xaw ma genre mais daal tellement dafa xat boo ñëwee sax doo nekk à pour aw yoon boobu da ngay jéem di wiiri wala genre dangay ngay di wiiri pour am euh, foo xam ne di nga am espace pour jàll fa ci xel mu dal mais rue 25 pour nga jàll fa sax si xel mu dal sax c'est tout un problème. taximan yi jakonté légui légui nénañ nañ bi xatna na trop parce que particulier ño xamul fuñu wara garé euh, nénañ tamit commune bi tamit ño leen wara mëna jappalé ci accompagnement bi na ku ne koor né ndugu parce que nit ñi dañuy ñëw masse leen te masse leen day bu maga mag après yéen comme yow responsable ci maire bi la nga la nga xalat ci lool bon lima xalat moy xam nga wéru koor wéru koor mo démé ni wéru bo bo gis euh, suñ démé ba ngon si ñu bari dañuy bëgg ndugu pour ndog bi day xat mais nak dama japp ni tay tali yi nga xamanteni mom la état bi di defar tali yi ñuy gas ni teewu bi moom moo xaw a indi xat-xat bi quoi lu mu pareegul commencé woon nañ ko ñu ngi commencé defar tali bi mais li mu moo tax yoon yi a xat pour man loolu moo indi xat-xat bi fii nii quoi si côté rue 25 bi. bon ñoom tamit foog ñu xam ne côté bi ñu nekkee côté marché la dafa xaw a xat affaire yi naxante la rek négocier gars yi pour mën a dem parce que côté bi ñëpp xam nañ ne marché bi fii bon parking yi bëriwul fii nii Médina la quoi Médina bi dafa xaw a xat foog tamit ñu jéem a def nànk-nànk rek négocier pour mën jël client yi loolu laa gis quoi en attendant ñu xaaraale pare. peut-être la mairie moo ci war a mën a taxaw mais gis nañ ni kenn taxawu ci en plus y a beaucoup de commerçants fii yoo xam ne ñu ñooy tax oto yi di dugg si di fi di fi ñëw bon ñu noonu nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéem a xool solution mais jusqu'à présent amuñu solution waaw dañuy ñaan nag moom loolu état lañ koy ñaan mu dimbali ñu si bàyyi bàyyi ñu xel quoi. parce que fii li fi aw moom dooy c'est à déplorer métti na trop métti na trop waaw ñun jëm nañ lu nee nag saisir nañ mairie saisir nañ police waaw préfet moo des voilà ñu ngi ñaan daal ku si mën a mu ñëw jàpp si gaal mu ñëw jàpp si balaa affaire yi di ëpp loxo